fii de suma fi ñewal lañ moy waron laaj lan mo tax ñewuma ndax euh, fi commune Ndiaga la loolu anam la euh, sama yaay bima jur sank lañ ma doon joxoñ kër gi nga xamantene ku ko la soxé ko kon fi ni fi ma bokk la même suma fi bokul won sax nak faf mais mu xew fenen ak fu ti doon ci Sénégal li dal ñi war na mën a tax ci yëg-yëg gi ma ci am ma demal sa bopp ba foofu bokk ak ñoom métit bi bokk ak ñoom xeex gi ñu nekk di xeex parce que Sénégal fépp fu métit gu toll nii daal doomu aadama fu ñu war a teew la bokk ak ñoom naqar gi li fi xew xanaa ku ko xamul waaye ku ko xam dina daw dina daw sa yaram ñi ngeen di gis nii ñuy def seen conférence de presse tey ay béykat lañu yaakaaruñu dara lu dul suuf ak seen ñaq gi nga xamante ne ñeme nañ coono dem daane seen doole ci tool yooyu boo jëlee seen suuf dese tuñu dara amuñu leneen loo xamante ne moom lañ yaakaar pour dund wala ñu yaakaar ko daan fa seen doole di fa faj seen soxla di fa fajoo di yor yore fa seen njaboot lu dul suuf soosu ak yàlla gu ñu yaakaar mu taw ci suuf yooyu naka lañ mën a ñëwee jël suufu béykat yooyu nga xamante ni ci seen maami maamaati maam tay bu la waxé ñu buñu nekké nekkee di béyik lool ba légui ëpp na téeméeri at nga xey ben jour def sa décret d'immatriculation ni ko président Macky Sall signé yobbu ko ci domaine privé de l'État jël ko jox ko kenn nit faté ñi nga xamante ñom mom njab ki suuf soosu njabor gi laq sen gannaaw di dundee suuf soosu lan lañ bëgg ñoñ dundé amna ci ño li bu jallé nawet gi di ñew buy tawee duñu am fenn fu ñu xëy béy ñi nga xamante ne dañuy béy sax duñu am dara ndax nawet gi baaxul ñu nekk ci période de soudure xiif bu ñu amulee faf dara nag lu ñuy def lu ñuy def suuf si dafa nekk ci diggante commune Ndiaganiao ak commune Sindia ci dëkk bi ñuy wax muy dëkk ñaara dëkk seq ko muy jiilax ak ak ak ndengaleer bii ndengaleer bii ñu nekk nii ci commune Ndiaganiao la bokk Djilakh ci commune Signal la bokk depuis bu ñu redu defaatee redécoupage administratif bi mais kon dafa am parti boo xamante ne ci la ñu jox Babacar Babacar Ngom ak Sedima benn parti bi jiilax la nekk donte ñii ñoo moom suuf si bu nekkee Djilakh sax parce que découpage boobu du tere li nga amoon Djilakh nga bañ ko fa am ba tey bu doon loolu kon Babacar du fi mën a am dara am parti boo xamante ne dafa nekk Njagañaaw démb bi ma dajeeg moom dafa dégg ne dañuy ñëw def si conférence de presse. mu sàkku ci moom pour mu gis ma. ne ma ñu waxtaan pour ngeen xam ñun ci lan lañ sukkandiku ak lan lañ nama def foofu wax jooju amee bu amee puisque dañ ci nar a addu wax am ni ñuy jàppale waa dëkk bi pour ñuy seen ñaxtu bi ñu mën ko dégg fu ne ma ne ko dinaa ñëw mais bañ dégg-dégg am ci gannaaw ma ne kenn koo xamante ne ñoom muy Mbaye Diouf mii moom laa dajaloon ci bu ñu koy njëkk a di wax ma ne ko kaay ñu dem parce que loo gis dafa war am seede ñu dem tok kërëm demb presque 18 heures wess woon na sax parce que dañ fay dug ak bii tamit si jot touti la ak ba 20 heures danaka ñu ngi fa 21 heures sax danaka mune mom dafa soxla won souf bu mu soxla souf dafa dem fenn fo xamantene japp nañ ne mën na fa amé souf muy commune mooy tundu bi ni ñu ne ko ci commune si la bok mu dem defar projet am soumettre ko conseil communal bu Sindia

yaa ngi wax sax ne dara ne ko fa woon mais dara bañ faa nekk tekkiwul ne kenn moomu ko parce que suuf soosu bi nga wax ne ay herbe sauvage nga fa deqi maanaam ay ngeer ak ay kenkeliba yi fa nekkoon yi fa saxoon ay garab ñoo fa nekkoon ay maamu nit ñoo jël semeñ di gor di avancer di gor di avancer di gor di avancer ba am fu ñu mën a béy kon ñooñu am nañ sañ-sañ am at woo xamante ne béyuñu ko parce que dañuy bàyyi suuf si muy noppalu ndax suuf si amatul doole depuis des centaines d'années ñu ngi amatul doole goo xamante ne mën na tax at gu nekk nga nga exploiter ko kon ñooñu am nañ sañ-sañu am ay at yoo xamante ne dañ koy noppal loolu pratique agricole la ñëpp xam nañ ko mooy la mise en jachère loolu nag bu taxee nga ñëw fekk tund ne lii kenn moomu ko kenn kenn exploité ko man damay ñëw defe sama projet justice sociale ak yërmande bi nga war a am ci néew gu doole yooyu nga xamante ni yaakaar leneen lu dul suuf am na nga ñëw waxtaan ak moom mais bu ñu xoolee décret d'immatriculation bu ñu siñee depuis 2015 buy jox Babacar Ngom suuf soosu dañu wax ne amul benn indemnité bo xamantene jox nañ ko nit ndax li ni babakar Ngom moko ko mom mais lolou demewul noonu te ñi nga xamantene ñoy signé décret d'immatriculation muy président Macky Sall ci bopam war nañu gëss bu baaxa baaxa baax and ak askan wi ñi yermandé budul dara sax di yermandé budul dara di yermandé mais nit mëno ñoo fekk suuf so xamantene mom bus la yaakar nga xey rek set nga ne ko souf si momato ko jox nañ ko ma samba mi nga xamantene mom mom alal mom mom doole boo xamante ne mën na ko ba pare jëloo dara tegg ko sen loxo souf domaine national ñu ko jox nit mu am ci titre foncier tank décret d'immatriculation amul président de la république di ko signé mais décret d'immatriculation ba ngi ni am ki ngi ciy gis moy ki ko signé mooy ki am sañ-sañu jël décret suufu domaine national dugal ko ci suufu domaine privé bu fekké ne loolu wara am la am un projet qui ko a nañu ñëw ñu waxtaan ak wa dëkk bi sañ chef du village bi sang lu mu wax bu pour dem jënd ciut ci kon responsable principal bi effectivement moy ko am signé décret parce que buñu signéul décret Babacar Ngom ak kenen ku mën di doon du mësa papier titre c'est pas possible tant que décret amul té décret moy tay fondement bi